gannaaw inondation yi ñu nemmeeku ci ay gox yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba te li nag mëna indi njeexit ci wérgu yaramu askan wi tax na nag brigade spéciale bu service di d'hygiène bi fare fii ci dëkk bu sell bi di Touba fas yéene tàmbali liggéey bu am solo. capitaine Cheikh Gueye jiite bërëb bi fii ci Touba moo ci indi ay leeral. xam ni moo jëm ci ndox yi nga xam ni moo taa ci biti. muy euh, ndox yoo xam ni bëri na ay doomi jàngoro yoo xam ni dañuy dund ci biir ndox moom loolu itam euh, dafa am benn activité bu ñuy tuddee euh, saupoudrage muy jël puudar xëpp ko ci jaww ji nga xam ne bu wàccee ci ndox mi dina mën a faagaagal doomu jàngoro yi nga xam ni moom moo nekk ci biir ndox mi donc loolu la nekkoon di def léegi nag ñu toll ci fi nga xam ni moom mooy saupoudrage bi mu doon li nga xam ni moom dañ koy def mu jëm ci biti euh, loolu itam ñu war koo tàmbali ci alxames bii di ñëw. liggéey bi nag ñu war koo tàmbali alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre 2024 bu min wi jotee tàmbali gi nag dana soxol ñetti gox yi gox yi nga xam ni inondation bi am na fa doole yoo gox yooyu lañu ñu li ci jiitu muy ndaamaatu Kër Ñang ak Ngiraanen ñetti gox yooyu la nu la war a def alxamis bi di ñëw incha allah. liggéey bu am solo boobu ñu war a def ci yenn ci gox yooyu ci dëkk bu sell bi di Touba ngir tàmbalee ko seenub liggéey tax na brigade spéciale bu service di d'hygiène jël mboole matuwaay yi nga xam ne nii dana tax nag liggéey bi ñu def ko ci anam yu mucc ayib. produit bi nga xam ni moom moo war a def euh, liggéey boobu itam. Euh, état bi def na ci lu am solo jaarale ko ci gouverneur mu jaar ci préfet yegg si ci sous préfet ba yegg si ci ñun euh, service national de l'hygiène bi nga xam ni moom tamit moom moo yore commandement bi euh, fële ca Dakar ñoom it def nañ ci lu am solo joxe nañ ci lim bu takku ci wàllu produit yi fi nga xam ni li nga xam ni moo jëm ci wàllu matuwaay yi nga xam ni moo jëm ci wàllu oto yi ko war a liggéey ak personnel bi ko war a liggéey yooyu yëpp tamit yemb na. di service d'hygiène di ñaax askan wi ci mboolem matuwaay yi nga xam ne nii war nañ koo jël ci bis bi nga xam ne ci la ñuy def poudrage bi lee li ci jiitu mooy képp koo xam ni eh, fi nga xam ne fa la activité yi war a am heure bi jot na na nga tëj say fenêtre fenêtre yi il faut ñu tëj ko te bañ a nekk ci biti soo nekkee ci biti produit bi mën na ñëw dal ci sa kaw te loolu baaxul Euh, lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu ñam lekk ndox mu sell mu nuy naan ak lépp loo xam ni dafa jum ci wàllu jumtuwaay boo xam ni ndab yoo xam ni dañ ciy def ay ay lekk tamit ñu ngi ñaan ñu loolu lépp ñu jéem fexe ba euh, aar ko muur ko wala dugal ko foo xam ni produit bi ci jote euh, leneen li ci des tamit moo ngi jëm ci wàllu jur gi ndax yenn saa yi di nga gis jur gi di tax wàllu ci mbedd mi ci yenn waxtu yi donc ñi ngi xamal borom jur yi tamit ni leen nañu jéem a téye jur yi ci kër yi ba nga xam ni produit bi nga xam ni moom la ñuy xëpp ci mbedd mi bañ a indi benn jafe-jafe ci wàllu jur gi. gannaaw ñetti gox yooyu nga xam ne moom la ñu war a tàmbalee liggéey bu am solo bile service d'hygiène mu ngi fësal ne liggéey bi nag du ko yemale fii. waaw euh, opération yi dafay démarrer euh, boo gisee sax mu yéex a démarrer mooy dafa doon opération yoo xam ni. fokk nga xaar ba taw bi wàññeeku nga doog koo def moo tax ci njëlbeen gi ñu jiitaloon dugg ci kër yi di pompe kër yi donc fi mu ne nii gis nañ ni nawet bi taw yi ñu ngi wàññeeku moo tax ñu tàmbali opération yi ni nga ko waxee nag ndaamaatu kër ñang mooy li nga xam ni moom la ñu njëkk a njëkk a tàmbalee mooy li nga xam ni moom la ñu njëkk a tàmbalee léegi nag yeneen quartier yi ni ñu ko defee ci ñetti quartier yi euh, dinañ ko def par secteur secteur bu ne incha allah équipe yi danañ fa dem. taxawaay bu am solo bi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ci service d'hygiène day firndeel rek taxawaay bi nga xam ne nii nguurug Sénégal am na ko ngir gunge askan wi ci xeex bi nga xam ne nii ñu ngi koy xeex mbënn mi taxawaay boobu nag saa su nekk ñu ngi koy nemmeeku ci wetu kuréel gii di junnatun liman nazamahu te sëriñ Muntaxa Mbàkke dénk leen lépp lu jëm ci taxawu mbokki jullit yooyu lee لسالك المريد وجنة من هادك